na kàddu yi sëriñ bi. léegi nag ñu ngi yéen moom moo leen di delloo kàddu. sëriñ bi moo mooy waxtaan ak mbokk taalibe yi ak waa moo àndoon njaboot gi ñam tàndoon ñu ànd moom ñëw fi man ñëw gi moom ci ndigal sëñ Keeba waxtaanoon waxtaanoon ñu amoon yéene mu ñëw fi teew bi waxtaan ñoom mu mayoon leen ko. waxon na len nam ko beugé ñu mayé ko ko nonu mu ñew ba ci dëkk bi ñom ñi tew mu wax ak ñom wax ji nak wésu wut wan mu ngi sant suñ borom li rek moko ko tax diiné diiné diine rek moko ko tax islam rek moko ko tax fekk na ko fi itam kon nak li ci dess des tollu way bi way bi tolluwaay bi moo di tolluwaay bi ci bopam l'islam ci bopam bari nañ ci ay lu ci lu ci métti. bari nañ ci luñ ci métti. bari nañ ci ay ay yu bëree bëri bëri yoo. bari na ci yu bëree bëri yoo xam ne. yoo xam ne bokku ci. bokku ci wala gënu ci. gënal gënu gënu ci gënalu ko. tolluwaay boobu moo lu ci lu ci adduna bépp la. toll tolluwaay bi ci adduna bi yëpp la. tàmbale woon naa wax ne. tàmbale woon na wax ne. bala noo tal eh, yoon. bala ñoo tal yoon. dañuy tal lislaam ba noppi. nañ tal lislaam ba noppi. lislaam bi aajo la jóg. lislaam bi aajo la jóg. kon nañ ci jóg. kon nañ ci jóg. du dara lu wul dara lu gën a fonk alxuraan gën a fonk alxuraan gën a fonk sunna si yonent bi gën a fonk sunna si yonent bi loolu nag loolu nag jàng koy maye moo moo moo moo moo koy moo koy moo koy moo ci tax a jëriñu jàng moo ci tax a jëriñu dégg ngeen li sëriñ bi mujjoon yim xalaat yim mujj yim waroon def lépp dégg ngeen xalaat yi sëriñ bi ñu mujjoon xalaat yëpp ab jàngukaay moo ci mujjoon ab jàngukaay moo ci mujjoon yàlla dajale noog moom yàlla da yàlla dajale noog moom kon loolu ma leen wax kon loolu mu leen wax ne ne alxuraan alxuraan ak sunna alxuraan mooy tax xam yàlla alxuraan mooy tax a xam yàlla sunna mooy tax a xam yonent bi sunna mooy tax a xam yonent bi mooy tax a xam ni ñuy jaamoo yàlla mooy tax a xam ni ñuy jaamoo yàlla kon nag te loolu li koy maye te loolu li koy maye xam-xam rek a koy maye xam-xam rek moo koy maye budul xam-xam lu dul xam-xam bu dul xam-xam lu dul xam-xam maanaam bu dul xam-xam bu dul xam-xam cofeel gi mën na faa nekk cofeel gi mën na faa nekk doyloo gi mën na faa nekk doyloo gi mën na faa nekk waaye nag li ñuy dimbali ban ban xam nanuy nanuy nanuy nanuy jaamee suñu borom waaye li ñuy dimbali ba xam ni ñuy jaamoo suñu borom nanuy topp yonent bi ak li ñuy toppee yonent bi ak nanuy dañuy ànd ak sëriñ bi ak nañuy ànd ak sëriñ bi loolu xam-xam moo koy maye loolu xam-xam moo koy maye am nañ tawfa ji fa tabarakallah am nañ xam-xam am nañ tawfa fa tabarakallah ay jullit lañu ay jullit ñu bi lañu ñuy topp yonent bi lañu bëgg sëriñ bi lañu ñu bëgg sëriñ Tuubaa lañu ñu doyloo bi lañu ñu ñu bi lañu lay tax ñu mën lay tax ñu mën xam-xam rek moo xam-xam rek moo tax ñu mën koo jëriñoo dama bëgg mu daa bëgg dañuy ñaan ne sëriñ bi daa bëgg mu ngi ñaan ñaan ñun ñëpp day ñaan ñun ñëpp l'islam bi yëpp. l'islam bi yëpp. rawatina ñi nga xam ne. rawatina ñi nga xam ne. ñoo aju sëriñ Touba. ñoo ñoo aju sëriñ Touba. ñun ñëpp jóg. ñëpp jóg jublu ci xam-xam. jublu ci xam-xam. gën a fonk alxuraan. a fonk alxuraan. gën a mooy tax ñu xam alxuraan. mooy tax ñu xam alxuraan. mooy xam mooy tax ñu xam sunna si yonent bi. mooy tax ñu xam sunna si mooy tax ñu xam sëriñ bi. mooy tax ñu xam sëriñ bi. kon loolu rek fi nekk. kon loolu rek moo fi nekk. maa ngi maa ngi ñaan yéen kilifa yi nga xam ne yéen ci dëkk bi sëriñ bi nee na mu ngi ñaan yéen kilifa yi nga xam ne yéen a nekk ci dëkk bi ngeen jógal seen bopp ngeen jógal seen bopp fonkat daara yi fonkat daara yi fonk jàngu alxuraan fonk jàngu alxuraan yéen a ngi ci woon ndax yéen a ngi ci woon waaye ngeen jógaat ci xam ne dafa ajona jóg ngeen waaye ngeen jógaat ci xam ne ajona jóg fonk nag jàng xam-xam fonk nag jàng xam-xam xam ba bañ ba xam seen diine xam ba xam seen diine xam yëmul fenn xam-xam yëmul fenn xam sa diine waaye xam sa diine doy na doy na nga dem jaamu ji yàlla nga dem jaamu ji yàlla loolu mën ta ñàkk waaye loolu mën ta ñàkk yéen ñi nga xam ne

door a jàngi xam-xam nag. door a jàngi xam-xam nag. xam-xam boobu mooy tax nga xam li alxuraan. xam-xam boobu mooy tax nga xam li alxuraan. mooy taxit nga xam sunna si yonent bi. mooy taxit nga xam sunna si yonent bi. kon nag li ñaan. kon nag sëriñ bi neen li muy ñaan. di laabire. di laabire. ndigal li yàgg na fi lool. ndigal ndigal li yàgg na ñeenti téeméer. ak ñeenti fukk. ak jii. tey jii. la la la a la islam gën a soxla ko a soxla wuyu mbooloo mu bari mbooloo mu bari tegu nañ ci siraatal mustaqim tegu nañ ci siraatal mustaqim mooy yoon wu mag wi mooy yoon wu mag wi waaye lépp waaye lépp taluñu taluñu taluñu taluñu yàlla waaye lépp taluñu yàlla taluñu alquran taluñu taluñu alquran taluñu alaxira taluñu alaxira taluñu yonente bi taluñu yonente bi adduna fabbi leen adduna fabbi na leen kan moo nekk te loolu alquran moo nekk li ñu ciy génne nag li ñu ciy génne nag mooy jublu ci jàng mooy jublu ci jàng jublu ci jàng xam xam xam ngir yàlla jublu ci xam ngir yàlla ba mën a xam alquran ba mën a xam alquran ba mën a xam sunu yonente ba mën xam sunna si yonent bi mën a xam sëriñ bi mën a xam sëriñ bi sëriñ bi li ko tax a jóg sëriñ bi li ko tax a jóg sëriñ bi sëriñ bi biñ fi ko gisee bañ ko noppee gis ko gisee ba niñ ko noppee ci dara lu dul boromam nekkul ci dara lu boromam ba mu jógee ba mu jógee bi muy bi muy feeñ bi muy feeñ bi muy feeñ xam na xam xam nag mayam xam nag mayam waaye da koo teg fee waaye da koo teg fee dem dali baasin dem ba dem dali baasin jàng ba xam jàng lu war a jàng lépp jàng ba jàng li war a jàng lépp door a wëlbatiku door a wëlbatiku woo mbooloo war a tegu ci siraatal mustaqima. ñu war a tegu ci siraatal mustaqima. loolu mooy yoon wu mag bi. loolu mooy yoon wu mag bi. siraatal mustaqima mooy yoon wu jub bi rek. siraatal mustaqima mooy yoon wu jub bi rek. loolu rek la fi loolu rek la sëriñ bi indi. yoon yoon yi nga xam ne ñoo soqi ko ci siraatal mustaqima. kon nag yoon yi nga xam ne ñoo soqi ko ci siraatal mustaqima. bala moo jag bala moo jag. yoon wu mag bi dafa jag. yoon wu mag bi dafa jag. nañ góorgóorlu jóg. nañu góorgóorlu jóg. fas yéene jóg te yàlla tax. jóg te yàlla tax. fas yéene xam fonk alxuraan. fas yéene fonk alxuraan. gën a fonk alxuraan. gën a fonk alxuraan. gën a fonk njàngum xam-xam. gën a fonk bu njàngum alxuraan ah, nga xam-xam jàng ba xam sunu diine jàng ba xam sunu diine loolu mooy tax ñu xam li ci alxuraan loolu loolu mooy tax ñu xam li ci alxuraan mooy xam nanuy mooy mooy xam sunu si yonent bi mooy tax ñu xam sunu si yonent bi jàng mooy tax ñu xam ko jàng mooy tax ñu xam ko loolu mooy tax ñu xam ñu xam nanuy jaamoo yàlla loolu mooy tax ñu xam nu ñuy jaamoo yàlla ba mu amee itam loolu bi am ba mu amee itam daf ñoo jaamuloo daf ñoo jaamuloo andi nu fi andi nu fi ñu war koo jaamu ñu war koo jaamu kon nag la ca des kon nag la ca des ñu xam nañ koy jaamu ñu xam nañ koy jaamoo loolu aw yoon la loolu aw yoon la da ngay jëfe alxuraan mooy jëfe alxuraan jëfe sunu si yonent bi jëfe sunu si yonent bi tegu ci siraatal mustaqim tegu ci siraatal mustaqim loolu loolu loolu loolu mooy mooy mbir mi loolu mooy mbir mi moo nu fi indi moo nu fi bàyyi moo nu fi indi moo ñu fi bàyyi yoon yoon yi yow moom yoon yi moom yoon moom yitte rek moo moo ko ci dolli yitte rek moo moo moo yitteel yoon yi yàqali rek lañ ci jublu ak wéeral ak wéeral dolli dolli yitte yi dolli yitte yi loolu rek moo indi yoon loolu rek moo indi yoon kon bala noo tal yoon yi waaye balaa ñoo tal yoon yi nañu tal siraatal mustaqim ba noppi nañ tal siraatal mustaqim ba noppi buñ ci jógee buñ ci jógee ah, sàmm yoon day yomb lool sàmm yoon day yomb lool la ca seen borom jublu woon la ca suñ la ca woon dañuy yomb lool dañuy yomb lool ñu mën koo jëfee ñu mën koo jëfee dolli ko siraatal mustaqim moo loolu moo moo moo mooy mooy mooy mooy suñu mucc. loolu mooy mooy suñu mujj. loolu moo tax ñu mën a mucc a mucc tey. loolu moo tax ñu mën a mucc tey. mën a mucc ëllëg. mucc moo mën a mucc boo loolu rek la loolu rek la. wax wax bi weesuwul loolu rek. wax ji weesuwul loolu rek. nañ góorgóorlu ci fonkaat jàng xam-xam. góorgóorlu ci fonkaat tax a xam suñu. loolu mooy tax ñu xam suñu diine. ba mën koo jëfe bu baax. mën a tegu ci saatam sax xiima loolu rek la الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين كلفي كلفي كلفي كلفي يفي جار يفي جار يب كلفي يفي جار يب يالله تخ لين جوك يالله تخ لين جوك عمل لين لين كنت عمل لين لين كنت غريري غريري واي نك واي نك لا جدس واي لا جدس موي تغو شرات المستقيم موي موي تغو شرات المستقيم كن كن لول كن كن لا دا فا وارتي يو دا فا وارتي يو te te mooy tax. te mooy tax nga gën a xam yàlla. nga gën a xam yàlla a xam sunu si yonent bi. gën a xam sunu si yonent bi. mooy tax nga gën a xam na ngay jaamoo mooy tax nga xam nga xam nañuy yitte joo ci mën a dolli. yitte joo ci mën dolli. loolu moom lañ tuddee ak taalibe. yitte ji dolli ci siraatal mustaqiim. yitte ji dolli ci dolleeku moo di ak taalibe. taalibe. moo di ak doon. taalibe li doon. mooy bëgg lu baax. mooy bëgg lu baax. te bañ lu bon. bañ lu bon. di def lu baax. tax nga di ko def. ku ku kuy doxee noonu. kuy doxee noonu. tegu ci siraatal mustaqima tegu ci siraatal mustaqima. yoonu yàlla ngoog yoonu yàlla ngoog. dara du la fekk dara du la fekk. Ah, kon nag noonu rek la demee. kon nag noonu rek la demee. sëriñ bi moom. sëriñ bi moom. noonu mën leen ko waxee rek. noonu mu leen ko waxee rek. tëlu fi dara. tëlu fi dara. lu dul loolu di jaamu boromam. di jaamu boromam. liggéeyal yonent bi di liggéeyal yonent bi. loolu rek ci biñ ko gisee bañ ko noppee gisee. biñ ko gisee ba niñ ko noppee gisee. ci loolu rek ci loolu rek la nekkoon. loolu nag loolu nag. moo suñ ndono ci moom. mooy suñ ndono ci moom. nañ fonk ndono loolu bu baax nañ fonk ndono loolu bu baax. mooy fonk alxuraan. mooy fonk alxuraan. fonk jàng suñu yonent bi. fo fonk suñu yonent bi. xam jàng jàng bu wér. jàng bu wér. xam xam xam xam alxuraan. xam alxuraan. xam suñu yonent bi. xam suñu yonent bi. di ko jëfe loolu moy siratal mustaqima door don buñ ci joggé buñ ci joggé door don ay talibé door don nak ay talibé lu ñuy def lu ñuy def bu ñuy topp ndigal bu ñuy topp ndigal te tax te yàlla tax bu ñuy daw téré bu daw téré yàlla tax na yàlla tax loolu nak moy moy moy mooy mustaqima loolu nak moy siratal mustaqima kon lañ ci doli lañ ci doli yitte ju reuy moy yitte ju won wan gannaaw aduna wan gannaaw aduna du tax du tax nga ñak sa jër ci adduna du tax nga ñak sa jër ci aduna day tax nak waye day tax nak nga mëna nek ci li nga wara nek nga wara nek nga mëna nek ci li nga war a nekk. dakk ci jaamu yàlla. mooy sax dakk ci jaamu yàlla. noonu rek la deme noonu rek la demee. loolu moo fi indi. loolu moo ko fi indi. sant sëñ Aliou bu baax ak. mu ngi ngi sant sëñ Aliou ak njaboot gi. ak mag ñi mu àndaloon. ak mag ñi mu àndaloon. te yàlla rek tax leen a jóg. ba ba maa ma ca tawfeex ba moom moom Serigne Mountakha mi moo ma ca tawfeex ba ci moom la jaar ba ci moom mii la jaar ba mu ngi leen di sant bu baax di sant gërëm leen bu baax noonu dong la demee noonu rek la demee jàng bee muy woote jàng bee bëgg bëgg xam xam xam xam yàlla bi xam yonent bi xam nañ leen di toppee xam nañ leen di toppee nañuy jaamu yàlla ak nañu topp yonent bi xam nañu doyloo sëriñ bi ak nañ koy liggéeyale loolu dong nga tax mu sos ko dëgg la bëgg gi mu ngi fi dëgg la bëgg gi mu ngi fi doyloo gaa ngi fi doyloo gaa ngi fi kër ngi fi lu ñu koy def kër kër ngi ñu koy def xam nañ koy xam nañ koy nako suñ borom nako suñ borom bëggee nako yonent bi indee nako yonent bi bi nako sëriñ bi sàmmee loolu daf cee mënta ñàkk waaye loolu loolu mënta ci bu baax kon nañ ci bu baax koy wax moo ko waxee ak yéen wax na ko njaboot bi ñëpp. yéen ñii ne am na yeneen kilifa bu ko wax na ko njaboot gépp lii moom. lii moom li ma leen dig li ma leen digal. mooy ndigal li du du du du ndigal ci man. nee lii moom du ndigal ci moom. ndigal li fi la ko fekk. kon du ndigal ci man. du ndigal ci moom. li mu doon. li mu doon laabire leen. mooy laabire leen. laabire leen. laabire leen. ci ni yàlla bëgg. ci ni yàlla bëgg. ni yàlla bi bëgg. ni yonent bi bëgg. ni sëriñ bi bëgg. loolu loolu moo ma fi rek moo ko fi laabire leen ci loolu. ngeen xam yoon wa dëgg. dëgg xam loolu nan ci jël xam nga ni ñu koy jëriñoo noonu rek la demee noonu rek la demee kon fokk ñu jàng kon fokk ñu jàng ba xam alxuraan ba xam alxuraan xam sunu si yonent bi xam sunu si yonent bi xam sëriñ bi xam sëriñ bi mooy tax nu xam mooy tax nu xam nañu war a jaamoo nañu war a jaamoo yàlla buñ ko xamut buñ ko xamut dañuy féetal rek dañuy féetal rek te loolu loolu loolu nekk nekkul te loolu amul ñu benn njëriñ te loolu amul benn njëriñ amul ñu benn njëriñ ñàkk njëriñ gi sax ñàkk njëriñ gi sax mën naa moo moo moo mooy jàmm ja ñàkk njëriñ gi sax mën naa mooy jàmm ja waaye nañ góorgóorlu waaye nañ góorgóorlu ci ci ci li ñu fi indi ci li ñu fi indi jaamu yàlla rek mu jaamu yàlla rek rek moo ñu fi indi il faut que ñu xam ne il faut que ñu xam buñ ko xamul buñ ko xamul neen rek lay doon neen rek lay doon kon jërë ngeen jëf loolu rek moo ko fi indi sant bu baax nee na ngi sant bu baax di yeesal bi ñu bokk suñu diggante sëriñ bi wala réew suñu diggante sëriñ bi koy yeesal bu baax yeesal bu baax di ko sàmmonteeg yéen di ko sàmmonteeg yéen te di ko fas yéene ko ànd ak yéen di ñaan baaxu Touba ak bi lii nga xam ne mooy suñu warteef lii nga xam ne mooy suñu warteef yomb nu yomb nu yombal ko njaboot yëpp yombal ko njaboot gépp nangul leen ko nangul leen ko te saxal leen ci te saxal leen ci jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf dañu ko daal waaw yëkkati ma nag ma defee nu yëkkati ma itam kii Kita ko yëkkati kii Kita nañ dellu gannaaw